ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك من شر شيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما وجعل كلامي راصدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla borom bi subhaanahu wa ام ام ام ام ام mi nga amee ci kàttanam nam nammeelam waaye di julli ci sang bu tedd bi sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ni mooy bunt suñu borom di nuyu di ziara mbooleem kilifa diine yi ci réew mi di ci jiital alxalifatul am li taifatul muridiya ak cheikh mouhamadunil muntaqa bachir di ko ñaanal suñu borom doolu ko defal tawféex doolu ko defal gudd fan ba mbooleem li mu yéene liggéey lislaam waaye jaare ko ci toolu maamam maolana radiallahu anhu mën ko yeggal ni ki noonu ñu ngi nuyu di ziara Serigne Babacar Sy Mansour alxalifatul am li taifatu tijaniya di ko ñaanal suñu borom doolu ko defal jàmm doolu ko defal tawfiix ba li mu yéene liggéey lislaam jaare ko ci toolu maamam Maulana Seydi Hadji Malick Sy mu mën koo yeggale ñi ki noonu noonu la ñu nuyu di ziara mboolem ñi nga xamante ni ñooy kilifa diini ak kilifa aaday waaye ñu ngi nuyu di ziara mboolem téléspectateur u Télé Prestige Thiès ñi nga xamante ni yéen ñuy suivre suñu émission boobu nga xamante ni mooy la place de l'enfant dans la religion ñu ànd ak yéen chaque jeudi Euh, fii ci biir Prestige TV euh, tey niki noonu noonu la ñuy dellu siwaat ak yéen ba tey comme ni ñu leen ko waxee woon suñu émission ba le passé la place de l'enfant dans la religion comme ni ñu ko xamee léeg-léeg ñu sekk koog yéen waaye it léeg-léeg ay éducateur léeg-léeg ñu sekk ay mbokk ndaw ñoo xamante ni euh, diine ak njub donga leen ñor tey nag comme ni ñu leen ko waxee woon dañoo am gan gu màgg koo xamante ni jàmbaar la du gan ci kër gi waaye du gan it ci yéen nekk jàmbaarloo comme ni ñu waxee woon docteur Cheikh Tidiane Mbaye bu ko defee tey moom la ñuy ànd ak suñu émission bi nga xamante ni la place à l'enfant dans religion bismillah salaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim euh, Oustaz euh, maa ngi lay fay euh, di kontaan lool ci dalal bi ngeen ñu dalal fii di ñaan yàlla lépp loo xam ne génn nañ ko ci kàddu lépp eh, rek doon jëriñ ci ñi nga xam ne ñoo ñooñuy ñooñuy déglu di profito ci antenne bi eh, di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan eh, ñi nga xam ne xam nañu ak xamuñu ñu ñi nga xam ne ñu xëy ñu ngi ñuy gis di nuyu it kilifa yi suñu way jur suñuy di leen ziar ak xarit yeeg am bi jàmm yëpp rek incha allah. Cheikh Tidiane Mbaye ni suñu defee tey ñu nit noonu la ñuy mayee émission rek euh, ci suñu émission bu nga xamante ni mooy la place de l'enfant dans la religion euh, xam ngeen ni junjoon nañ leen moom docteur ci fan yi ci semaine bii ñuy jénn tombé yaakaar naa la 7 décembre ci la livre am nga xamante ni am na solo am solo goo xamante ni euh, ëpp naa bañ a xam waxuma laa bañ jënd euh, muy livre bu am solo muy Sénégal le système dans tous ses états euh, muy livre bu ama am solo boo xamante ni moom mi bind na ko mu wund lu baree bari tey bu soobee yàlla ci lañ bëgg ànd ak moom sekk ak moom ak waxtaan ci lu jëm ci livre bi nga xamante ni moom la bindoon balaa ñuy sori di développer ci biir li livre bi dëxëñ xam naa dañ lay laaj lan moo sabab bind bi sëñ Cheikh waaw oustaz euh, lu tax ñu bind téere bi mun mhm. naa ku jënd téere bi sax nga mhm. xool euh, euh, conclusion bi ci mhm. ci conclusion bi ñu ngi koy ñu ngi ko fay leeral déjà ñu ngi fay ñu ngi fay fësal di téere bi xam-xam la moo xamante ni amul par parparloo waaye am na tamit lu ko lal mooy bëgg sa réew bëgg sa réew te Euh, bañ mu yàqu te bëgg mu baax ah, donc téere la boo xamante ni mhm. ñu ngi ko pare 2019 2019 waaw 2019 laa ko pare bi noppi waaw donte am na ci texte yoo xamante ni ci biir téere bi maa ngi ko bind bi may nekk étudiant bi may nekk deuxième année université ñun bi ñuy tàmbalee première année deuxième année la ñu commencé di bind article di publier euh, am na ci yoo xamante ni euh, comme li ñu def sur la crise des valeurs article bi ñu def

nga jël sa temps nga defaraat ko waaw nga defaraat ko mën leen amul benn problème euh, boo xoolee jamono jooju sax ki nga xam ne cheikh Ahmad Bamba Diagne muy professeur d'université euh, nga xam day jàngale économie mhm. euh, di koo xamante ni ràññee nañu xam-xamam ci Sénégal moom ma ko préfacé mhm. bi ma ko joxee ci la ko liir kontaan ci préfacé ko mhm. wax dëgg yàlla préface bu rafet ba boo xamante ne àdduna yëpp ñu ngi koy ñu ngi koy rafetlu ba jox ma ndigal ni ma mën nga ko publier <laughs> waaw na waaye ah de comme ñu bëri wax nañ ñuy xaaral. Hmm. ma ni kon naa xaar. Hmm. waaw boobu 2019 daanaka annoncé woon naa ko sax ba àdduna yëpp ñu ngi doon xaar. Hmm. Euh, boobu mu ngi tuddi le système au cœur. le système au cœur waaw boobu noonu laa ko tuddee woon. xam naa kuy faral di ma suivre sax di di nga ko gis waaw léegi bi ñëw ci waxtaanee ak ay mbokk euh, ci lañ ñu le système au cœur rafet na baax na waaye dafa xaw a vague jéemal xalaat beneen titre boo xam te ne dina gën a refléter. contenu bi. Mm-hmm. après ci la ñu réfléchir ci euh, titre Sénégal le système dans tous ses états mm-hmm. donc Sénégal le tout système dans tous ses états aussi mm-hmm. euh, maanaam comme ni ñu koy waxee le Sénégal dans tous ses états am na ñaari tekki dégg ni ñu ci mën tamit muy wundu bëggoon nañ ko xam tout à fait am na ñaari baat am na ñaari déggin yu ñu ci mën am benn déggin bi xam nga état yéen arabisants yi yéen a ngi koy tuddee xaal <laughs> waaw xaal nit ki am na ci xaal day toll ci day ata mooy xaal yëg-yëg waaw yëg-yëg donc ñu gis ni système bi euh, daanaka dafa nekk ci euh, dafa toll ci euh, foo xamante ni mhm. maanaam comme niñ ko waxee démb mu ngi tërëf waaw système bi mu ngi tërëf ndax dem na ba maanaam euh, li naan le système est pourri mhm. maanaam dem na daal ba atteindre limitam waaw dem na ba atteindre limitam ba nga xam bu fekkoon guy la mën nañ ni guy la bu tàmbali yëngu bay waaj a daan mhm. waaw bay waaj a donc loolu système dans tous ces états benen déggin bi mhm. système dans tous ces états mën nañ ci euh, livre bi fait analyser le système dans toutes ses facettes mhm. donc dans toutes ses composantes parce que système bu ñu ko Sénégal ñu ngi politique politique yi ni ñuy comporté woo ni ñuy donc këpp alalu caisse mhm. euh, nguur ah, donc clientélisme euh, par parlo à ah, ak guerre ah, bini ñuy doxalee ak Euh, achat de conscience bu élection jotee. Hmm. Euh, ak wax lu dul dëgg. donc ñun pour ñun loolu rek mooy système alors que système. lu est ko ci les paradoxes. waaw donc ah. moo tax ñu ñu yaatal ko yu bëri système lu yaatu la. système dugg na ci politique dugg na ci koom dugg na ci euh, ni ñuy xalaatee ni ñuy comporté woo te li ci ëpp solo sax mooy ñun ni ñuy comporté woo ak nu ñuy ni ñuy ni ñuy gisee ak ni ñuy ni ñuy yëgee donc hmm. livre bi dañ ko bind. Hmm. juste pour contribuer daal le débat public donc ci waxtaanu penc mi. ñu nit ñu indi ci suñu xalaat. Euh, ngir lu ko xamante ni dina gën a yéwénal penc mi ndax dañu xam ni euh, mm-hmm. Sénégal dëkk la boo xam ni yàgg na sosu euh, avant ñu am indépendance mm-hmm. colonisation la ñu nekkoon mm-hmm. avant colonisation esclavage donc dëkk la bu yàgg ci souffrance jafe-jafe donc dëkk la bu yàgg ci jafe-jafe bi ñu jógee ci esclavage ñu ngi daanu ci colonisation yaakaaroon ni mooy gën colonisation metti ñu jógee ci colonisation daanu ci indépendance léegi waxatuñ sax indépendance mais ñu ngi wax néocolonisation am na sax ñoo xamante ni ñu ngi naan ñun tubaab yi waruñu woon dem ndax tubaab yi ñoo fi ñoo gën ñi nga xam ne lañ fi ñoom lañ fi bàyyi mhm. gis-gis bi ñu am mooy euh, ginnaaw 63 ans d' indépendance ñu yaakaar ni moom nañ suñu bopp euh, ñii nga xam ne ñoom ñoo doon nguur gi dañu teg ci réew mi euh, benn système benn façon doxalin mhm. boo xamante ci li mu tënk mooy jël alalu askan Euh, ba pare ànd ci ak tubaab yi. Mhm. nga xam ni ñoom may nañu indépendance waaye ñoom it euh, génnuñu ci. Mhm. waaye ànd nañ ci tamit ak ñoo xamante ni ci réew mi la ñu mhm. nekk. aw nekkuñu ci nguur hmm. waaye nit ñi déggal nañ leen hmm. waaw nit ñi déggal nañ leen donc ñooñu ñëpp dañuy constituer système bi ba nga xam ni hmm. maanaam dëkk bi ni muy doxee ñennat ñennat rek ñoo ciy gis seen bopp ñi ci ëpp gisuñu ci seen bopp te mënuñu ci dara dem nañ nag ba ñu ci bari dem nañ ba nangu ko waaw ba nangu ko parce que dañuy dem ba gis nii daal lii euh, mënatuñ ko mënatuñ ko soppi boo xoolee bu ñu demee ba yenn moment yi ba nit ñi am yaakaar euh, nii daal Euh, kii ñëw nii moom dafay soppi système bi dafay jëlee li fi nekk. Mhm. waaw kii daal lim ñu wax doy nañu. Mhm. nañu topp ànd ak moom mu soppi mbir yi. Mhm. Euh, ñu gis ni waajooju su ñëwee moom it def ni moroomam defoon. waaw du gis nañ fi alternance ak ab Abdoulaye Wade. yaakaar bi amoon soppi. <laughs> Ah, euh, Senghor li mu waxoon l'an 2000 atum naataange la. ah l'an 2000 le Sénégal sera comme loolu ñun daa man bi ma boobu presque xanaa fukki at laa am. 2010. 2000 hmm. ah 2000 ah 2000 boobu xam naa juróom fukki at la am. Hmm. ah boobu ñu ngi ñu ngi ñu ngi yaakaar l'an 2000. Hmm. Sénégal naat boobu Ablaye Wade jël réew mi Ablaye bi mu jëlee réew mi gis nañ ni réew mi te soppeekul trop daanaka xeex yi ñu doon xeex ngir Abdou Diouf jóge fi. même xeex lañ doon xeex ngir Ablaye Wade jóge fi. loolu tamit moom moo tax. 23 juin am ñu dem 23 juin xeex. ba tax boo xoolee ci ti euh, ci couverture téere bi. daa ngi ciy gis moom a du Diop. Euh, étudiant la boo xamante ni bokkoon na ci 23 juin ñu doon xeex gi nga mu ngi nii euh, yor micro di nodd bi nga xamante ni dem nañ di xeex ngir Ablaye Wade jóge fi ba julli jot moom moo dem nodd te mu ngi ko àndaloon xeex bi ak kii fii nekk tey di jiite réew mi ñu doon xeex lan lañ doon xeex système bi système ni mi clientélisme corruption hein, euh, guerre hein, euh, wax lu dul dëgg mm-hmm. noot askan bi mm-hmm. donc loolu lañ doon waaye euh, gis nañu aussi ba léegi tey. ba président boobu président Macky Sall moom moo fi nekk. waaye ba léegi même combat yi. wallaahi wallaahi même thème yi. lañ doon xeex fii moom lañ doon xeex ba léegi. moom moom moom la ñuy xeex léegi nag laaj bi mooy léegi problème bi ci lan la. problème bi est nit yi la. wala est-ce que régime yi la. wala est-ce que système la. système mooy doxalin. Hmm. est-ce que jëlee fi nit. jëlee fi nit est-ce que tax na réew mi soppeeku.

Euh, le système et les hommes. Mm-hmm. parce que système bi doxalin la waye mm-hmm. amna ay nit yo xamanteni ñokoy ñokoy doxal. ñokoy mm-hmm. yor depuis indépendance ba légui euh ñi ci politique bi la ñi ci yenen parti la parce que dafa def système bi dafa am ay système donc am na tamit façon doxalin. donc loolu la ñu analyser ci premier partie bi am na ñoo xamante ni tamit ñoom ñoo jàpp nañ ay résistance au système lañ dañuy xeex système bi. Mm-hmm. Ah, doxalin bi ñoom jàpp nañ ñoom dañu bëgg mu jeex. Mm-hmm. ñooñu ñëpp analyser nañ leen boo xoolee ci téere bi. Mm-hmm. am na ay personnalité yoo xamante ni ah, dañ leen a jàngat. comme Macky Sall nga xam jàpp ni ci système la bokk comme Idrissa Seck. comme Karim Wade. Ah, jàpp ci bi la bokk. jàngat nañ ci tamit eh, kii di Ousmane Sonko nga xam ni moom dafay jàpp nii Euh, moom euh, dafa bëgg a xeex système bi boo xoolee sax système avant ñun ñu ciy bind euh, docteur Cheikh Tidiane mm. moom moo ci njëkk bind mm. ginnaaw moom waaye donc livre baa ngi nii indaale naa ko te maa ngi koy recommandé Sénégalais yëpp ñu jënd ko mm-hmm. parce que jaakaar jàppan jàpp naa ni mm. livre yi ah mooy changé àdduna <laughs> donc mm-hmm. mm-hmm. euh, la corruption bureaucratique au Sénégal trajectoire ressort et représentation populaire donc mu Sénégal dafa dem ba. Mm-hmm. guerre moom norme ah, donc guerre mooy norme bi fi administration. solution. waaw bii euh, livre solution. solution moo tax avant ma ciy bind donc dafa dama waroon dama leen consulter. Mm-hmm. donc gëstu leen. Mm-hmm. Euh, Ousmane aussi jàngat nañ ko ci euh, ndax moom jàpp nañ ni dafay xeex système bi. donc loolu mooy chapitre bu ah. njëkk bi mhm. mooy séquence bu njëkk bi ci biir séquence boobu am na ay articles yu nekk ci biir yoo xamante ni ku ko jënd mhm. di nga ko gis donc ay articles yoo xamante ni dafay wax ci système bi ak ñi nga xam ni ñoom ñoo koy doxal voilà ah, ñoo ciy dund ak ñi nga xam ni ñoom ñoo koy xeex beneen bi mhm. séquence bi mu ngi tudd les paradoxes sénégalais waaw les paradoxes sénégalais bu ñu ko waxee mooy euh, xam nga Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ni euh, état bi euh, li muy wax ci def naa def naa def naa ci eh, walu infrastructure te pour tek ci beut waaw ci walu xaliss mhm. mhm. nga jëlal jëlal rek domaine bu mel éducation euh état bi dana def na ci ay milliards tabax na tabax na waye sa yu ñu xeye gis ni dafa melni jafare jafi jafi dal jeex manam li état di def du jeexital trop trop trop ti ni nga xamni mom la pour population yi di dund te téwul chaque euh, à chaque fois da ngay gis état nan def na def na def na jëlal exemple tamit bu melni xex guerre xeex ger boo xoolee li ci état def ci milliards. corruption waaw. Mm-hmm. li ci état def ci milliards ak li mu ci créé ci ay institutions. nit ñi ci recruter ci ay nit ba léegi fi may waxee nii tey ba léegi tey. Mm-hmm. Euh, ger tey tey la gën a gën a gën a gën a gën a mm-hmm. ñu tuddee emploi des jeunes état li mu ci def ci milliards. ah li ñu ci créé ay institutions. ah, ah pléthore d' institutions ba léegi. Euh, ñu ngi wax immigration clandestine. Euh, bi may ñëw dama def choc. Euh, fonk sama kàddu moo tax ma ñëw. waaye lu tax ma def choc. Mhm. mooy dama doon dem ma jël dugg Jakarta. Mhm. Euh, dugg Jakarta Jakarta bi xam nga euh, Jakarta ñi koy dawal amuñu mhm. amuñu amuñu qualification. waaw déjà bi ma bi ma bi ñu defee choc ba pare. maa ngi maa ngi koy wax mais yow est-ce que est-ce que yàgg ngaa dawal mënuma déedéet yàgg ma dawal. waaw. xam nga boo xoolee Dakar ñu ëpp ñu fay Dakar Dakar léegi Jakarta dafa takarnaase mhm. te ñu fi ëpp ñuy dawal Jakarta Dakar ci àll bi lañ jóge parce que àll bi doxatu mhm. àll bi yàq nañ ko ba mu yàqu mhm. mbay bi sax léegi doxatu boo xoolee moo tax xale yëpp jóge nañ fa dem boo xoolee état li mu def ci mbay li mu def ci emploi des jeunes ba léegi tey xale yëpp daanaka jàpp nañ ni ci Jakarta bi lañ ñi te te loolu gisuma lu ko gën dangereux. maanaam ñun suñu société bi économie bi yëpp nekk ci informel xam nga économie informelle dafa grave. jàngat nañ ko ci liggéey ndax lu tax mu grave mooy ki lay servir kenn contrôlé wu ko kenn xamul ndax qualifié na oto bi ngay duggu kenn xamul ndax waa ji parce que bu dee formel la. dañ koy contrôlé. mais bu dee informel la yow jakarta bi ngay dugg xamoo ndax mën na dawal xamoo ndax dafa màndi xamoo parce que kenn contrôlé li ngay jënd ci mbedd lekk bi ngay jënd ci mbedd. Hmm. xamoo ndax ki koy jaay. ndax am na hygiène. Hmm. ndax ndax moom respecté ndax ragal na yàlla ndax ragal yàlla rek mooy tax mu bàyyi yenn xel mais loolu mënoo ko contrôler. dëgg la waaw. waaye donc yooyu. moom lañ jàngat ci ci deuxième point bi. Hmm. Euh, boo xoolee am na tamit benn benn benn benn article. Hmm. boo xamante ñu ngi ko def ci Casamance nga xam ni. Euh, dëkk la boo xam ni Casamance dëkk bu naat naat naat naat naat mais bokk na ci dëkk yi gën a ñàkk Sénégal. loolu mooy paradoxe. waaye Casamance euh, maanaam. Euh, bokk na ci dëkk yi gën a naat ci Sénégal. Hmm. waaw naat ci Sénégal boo xoolee Sénégal euh, bokk na ci dëkk yi gën a naat ci àdduna. Hmm. waaw ci wàllu ressource. waaye Sénégal bokk na ci dëkk yi gën a ñaax xam loolu paradoxe la. tey boo demee ci internet nga def euh, France nga def ressource naturelle. Hmm. doo gis dara. <laughs> boo demee internet nga def Sénégal internet tubaab yi ñu ko créé de. Ah, tubaab yi du ñu sosal seen bopp.

troisième chapitre les paradoxes sénégalais deuxième chapitre bi mooy les crises au Sénégal. les crises au Sénégal dañu jàpp ni Sénégal jafe-jafe yi. Hmm. feebar yi feebaru réew mi. Hmm. te feebar bi nag feebar yi fépp la <laughs> dañu Sénégal bu doon yaram dañu ni yaram bi féppay metti féppay metti ci famille bi famille bi ah famille bi boo xoolee même ñi nekk ci médias yi di waxtaan ci thème de société yi hmm. même thème yi boobu ba léegi même thème yi la waxtaan parce que jafe-jafe yi ñuy wax xam nga wax naa tax ba wax ci xarum tabaski ci xarum tabaski man leen tey xoolal bu tabaski jotee chaque année même problème la ñu am. Hmm. mooy est-ce que xar dina léegi ñun on est condamné à vivre le même problème à l'éternité <laughs> waaw léegi état état moom amul sa capacité mu autre solution. Hmm. ci Sénégal mën a am autosuffisance en mouton. waaw maanaam ñun dañoo jàpp ni loolu fatalité la. Hmm. waaye te loolu boo demee maanaam ci pàcc yëpp ci wàllu école. jafe-jafe yi ñuy amoon. suñu taamaam yi ba léegi jafe-jafe yooyu la ñuy am. boo demee ci famille hmm. jafe-jafe yi ñu amoon ci suñu temps maam yi ba léegi ci jafe-jafe yi boo demee ci université yi université ba léegi ñu ngi wax problème orientation ba léegi ci jafe-jafe yooyu chaque année ci état bi ni muy fonctionner hmm. eh, jafe-jafe yi ñu am ak suñu politique yi ak jafe-jafe yi ñu am ak administration hmm. maa ngi wax léegi rek bi may ñëw damaa def bi ma defee choc ba pare ma dem hôpital ma dem hôpital Euh, déjà Jakarta bi ma yóbbu sax ba ma dégg hôpital moom damaa yóbbu rek dem yoonam waaw an aw ma accompagnant hmm. bi ma duggee ci hôpital bi ñu ne ma demeel urgence hmm. fekk sama tànk ba xureeku na sama loxo na hmm. bi ma demee urgence ma dugg daanaka faalewu ma <laughs> waaw bi ma toogee tuuti am mu ne ma yow lan moo la dal ma wax ko mu ne ma toogal foofu mu ñu ñëw ma toog après ñu ñëw fekk ma fa ni ma léegi yow an sa accompagnant ma ne ko man awma accompagnant de mu ñu wax ma lan moo la def lii ma wax leen ñu ne ma naa demal jënd ticket. <laughs> waaw ku ñëw ay mettitam coonoom sonn nga ni ko dama jënd ticket mu war a dox ak tànkam ñu mel. hôpital laa la wax de. Hmm. hôpital Youssou Mbargane bu nekk Tëngéej. ñu ne ma dama man leen ma man nu may jëndee tikk man mënu dox xool leen gis ngeen fi ni ma ñëwee. ma xaw a kii seen kaw sax ñi tiit après ñu ne ma wàkkaay ma ñëw ñu yónni ma yow demal fi salle pansement ma dem salle pansement ñu tëral ma ba pare tëral ma de toog di waxtaan seen waxtaan ba pare. Hmm. ma soññu leen ñu ñëw. bindal ma ordonnance boo xamante ni moom la ñu may toppatoowee. ñu hmm. ma demal ci pharmacie nga jënd ku ñëw ak tànkam mettit <laughs> doy na waar. <laughs> donc boo xoolee jafe-jafe yi ñuy am. Hmm. ci fànn yëpp ci wàllu administration ci politique ci famille ah ci ci valeur. ah xëy na dinañ ci ñëw ci kanam. valeur dinañ ci donc boo xoolee jafe-jafe yooyu. donc daanaka. dañu dem ba fataliser ko. Mm. te loolu li ko indi système bi la. Mm. waaw maanaam façon réew mi ni muy doxee. Mm. moom moo indi jafe yooyu du mus a jeex moo indi aussi état bi à tout moment. dafay def dafay def dafay def waaye li muy def du am jeexital. ci nit ñi jafe-jafe jafe-jafe comme ni nga junj sànq. fan la ñu mën a jut baaraam ni foofu la. waaw euh, dinaa si ñëw ci jafe te li ñu ko expliqué mooy système. système maanaam réew mi ni muy doxee. moom moo jur jafe-jafe yooyu. Euh, ni réew mi di doxee. dinañ ci ñëw Euh, chapitre bu mujj bi mhm. euh, moom la ñuy def ci le contrat social sénégalais l'avenir du contrat social sénégalais maanaam réew mi euh, keno yi ko téye lan mooy ëllëgam mhm. xam nga réew mi bi ñu amee indépendance mhm. maanaam ñi nga xam ni ñoom ñoo doon nguur gi nit ñi dégg lu ñu leen woon trop ñoom it jéemu ñoo def effort ba nit ñi bàyyi leen xel déggal leen waaye dañoo gis ne comme nit ñi déggal nañu sëriñ si mm. ñoom ñu jubook sëriñ si mm. bu ko defee nit ñi bu ñu meree sax sëriñ si bu ñu waxee ñu toog mm. moo moom laay waxee ni euh, maanaam senegal day doxee tànk bu bu lagaj di langaamu ci tànk bu bu bu di ci beneen tànk mm-hmm. man leen fi mu ne nag bu ñu demee ba tànk bu lagaj boobu di langaamu ci benn tànk tànk boobu bu lagajee fu ñu jëm dañuy raab dafa mel ni nag réew mi boo xoolee foofu la jëm parce que fin ne nit ñi weguñu te daanaka mosuñoo wekk hmm. euh, li ñuy tuddee légalité pouvoir pouvoir public yi hmm. ndax seen façon doxalin hmm. ba nga xam ne doxalin boobu moo indi jafe-jafe yi ñu nekkee moo indi li ñuy def du jeexital ci ci dund nit ñi waaye fi mu ne nii jamono yi ñu toll nii dañu dem ba kilifay diine yi nga xam ne ci la pouvoir public yi daan sukkandiku sax ngir bu nit ñi demee ba mer bëgg a fippu ñi toog kilifa diine yooyu sax kilifteef bi ñu amoon ci nit ñi ñu ngi koy commencé per léegi ñuy laaj ëllëgu réew mi fan la effectivement waaw ëllëgu réew mi lan mooy avenir mm. lan mooy avenir u Sénégal mm-hmm. euh, bu fekkee dem nañ ba tànk bi nga xam ne moom la pouvoir public yi doon la nga am tànk boobu it mu ngi commencé mu ngi commencé la man googu ci ci ci loolu rek daanaka mën nañ cee sukkandiku mm. mën nañ cee sukkandiku laaj ci question boobu nga xamante ni moom la ñu bëggoon a laaj mm-hmm. ndax euh, junjun nga ci biir téere bi hmm. am nga ci partie boo xamante ni fànn boo xamante ni doon na lépp mënuñu koo développé hmm. am na ci fànn boo xamante ni yaa ngi ciy wax lu am solo mooy li nga jeexalee nii lépp te muy dellu ci wàllu jikko wàllu hmm. comportement muy crise des valeurs sëñ Cheikh loolu it laaj na euh, ak joyantiwaat boo xamante ni maanaam dina jub dina jëm ci kilifa yi waaye dina jëm ci ci ci ndaw ñi ci crise des valeurs tout à fait tout parce que am na ci téere bi benn chapitre bu ñu tuddee euh, manam Sénégal lan la am problème valeur la am. Mhm. nii dañu am problème mu jikko. Mhm. wala institution yi fi nek mhm. ñom ñoo deful sen rôle di tàggat nit ñi ci djiko yoy d'accord wa ñun li ñu conclure moy djiko mu ngi fi. djiko mu ngi fi waaye institution yi ñoo ñoo deful sen rôle. di tàggat nit ñi ci djiko yi nga xamni mo fi nek amna djiko yi fi nek ndax ku la xol xamni amna am nga djiko te sénégalais nga. hein donc amna benen yenen sénégalais yu mel nonu te bo xolé Sénégal tay bu góor jigéen bu ñu gisee góor jigéen nit ñi nit ñëpp mer ah nit dafay dakk da dem nañ ba sax am ay groupe def pétition wër fi ne daanaka ñu bëri signé ko hmm. boo xoolee Sénégal daanaka bëgguñu góor jigéen loolu valeur la hmm. waaye hmm. am na ay yenn saa yi fiy jot am yoo xamante ni day am ci télé yi wala ci pénc mi nga gis ni nit ñi dañ ciy indi ñëw waaw dañuy indi ñëw waa loolu day firndeel ni nit ñi am na lu nekk ci ñoom ci valeur. Hmm. waaw am na lu nekk ci ñoom ci valeur parce que loolu mooy firndeel valeur yu nekk ci réew. Hmm. valeur yu nekk ci réew ci société li koy firndeel mooy valeur yi saa wuñ ko bafoué saa wuñ ko offensé rek nit ñi dañuy réagir maintenant hmm. est-ce que institution yi ñu ngi joué seen rôle maanaam est-ce que tey euh, loi yi nga xam ni moom la ñu créé. est-ce que loi yooyu mu ngi sàmm valeur yi. dama lay jox benn valeur bu ñu tuddee cousinage à plaisanterie mhm. nga xam ni loolu bokk na ci liy tabax suñu penc. Mhm. luy luy luy sàmm diggante ethnie yi. Mhm. nga xam ni euh, euh, mbayeen ak euh, sàmbeen di kalante. di kalante ah loolu ban école lañ koy jàngale Sénégal. fukahaatu baynal xabaar waaw ban école lañ koy jàngale Sénégal est-ce xale yi ñu ngi leen di jàngal maanaam bu fekkee yow mbay nga sant kan mooy sa kal ak sa kal boobu nan ngay doxalee moom lan nga ko war a wax lan nga ko warul wax. lan ngeen sekk lan ngeen bokk lan moo leen boole lu tax ngeen nekk kal est-ce que ñu ngi koy jàngal xale yi ñu ngi koy jàngal xale yi école hmm. li la li ñu tuddee valeur teranga hmm. Sénégal pays de la <laughs> est-ce que tey école Sénégal hmm. ñu ngi jàngal xale yi loolu di leen ci yar di koy leen ci yar ci famille di leen ci tàggat nga xam ni ñun leen sénégalensis dafa war a nekk nitu teranga feeñ waaw nitu teraanga donte valeur yi mu ngi xaw a des tuuti. Mm. parce que yenn saa Sénégal aussi euh, nga dem ci kër. Mm. ah nga xiif. raan jot waaw jot ñu ñu tegal la nga añ. <laughs> waaw mais est-ce que est que institution yi ñu ngi jouer seen rôle di suuxat valeur yi ndax bu ñu ko bàyyi à l'état mën na dem ba rouge ba jeex. loolu la Sénégalais moom ci ci bu jëlee exemple lu yi bu jëlee exemple loi mm. parce que tey euh, récemment gis nañu euh, benn oustaz Oumar Sall mu wax loo xamante ni xëy na. Euh, ñi nga xam communauté de mm-hmm. ils se sont sentis offensés mm-hmm. ci wax mu wax dafa mm-hmm. mais lolu loi a loi ak contrat social ñu tuddé contrat social parce que ñun comme ñoo réew ñi ibadu lañ ñi nous ñi mouride chrétien contrat social nañu waxtaan comme ñun bokk duñu ko bokk lakum wa lakum wa <laughs> Ah, mën nañu ko bokk. léegi nan la ñuy mën a organiser suñu société suñu penc ba nga xam ne kenn ku ci nekk li sa morom gëm nga mën ko ci respecté mais ni ñuy organiser ni ñuy tënkee penc bi ñu waxtaan ci déggoo ci. Hmm. créer ay loi mu sàmm ko. mu sàmm ko waaw mu sàmm loolu waaye normalement Sénégal fi ne nii war na mën a am loi parce que sénégalais bëgguñu góor jigéen. Hmm. te état bu bañee. sénégalais yi di fajal seen bopp bu ñu gisee góor jigéen ci mbedd mi ray ko wala bu ñu gisee ñu suul góor jigéen ci mbedd ci ci armère ñu sulli ko état hmm. moo ko war a mais est-ce taxawaay moom ci loolu ngir sàmm jikko yi moom taxawaay boobu taxawee na ko. Hmm? taxawaay boobu noonu mu ci war a taxawaay ba. Hmm. tey jii loolu ba amoon. Hmm. ndawu réewam bu ñu ñemee fipp. pour jëfal jëfe pour fayu seen bopp. wala pour pour pour pour pour défendre seen i seen i seen seen seen réew. Euh, est-ce que loolu ñoom bu ñu taxawoon taxawaay bu ci mat ñoom dinañ ko ndawu réew. waaw loolu loolu day firndeel li ñuy wax mooy paradoxe yi ci réew mi. mooy institution yi. méngoowul ak ñun lu ñu gëm. institution yi. méngóol maanaam état bi. li muy doxal méngóol ak ñun lu ñu léegi nag bu fekkee état bi comme moom mooy moom moo ñu war a fajal suñu mer. war a fajal suñu soxla te moom mer ak soxla yi muy faj bokkul ak suñuy mer ak suñuy soxla. ñun bu ñu amee soxla am mer état bi fajal ñu ko dañ koy fajal suñu bopp. problème la waaw dañ koy fajal suñu bopp donc loolu moom mooy jafe-jafe bi mm-hmm. maanaam euh, état bi soxla ak mer yi muy faj. Mm-hmm. dafa xaw a wuute. Mm-hmm. parce que tey boo xoolee jëlal constitution Sénégal. dañoo dem ci tubaab bi France. jël seen constitution ñoo jox ñu dañoo dindi France fii ci France nekkoon di ko ci senegal te ñun ñu waaw. luwaay yu bëri yoo xamante ni moom la suñu réew mi di doxee. dañoo dem ci Fra damay dem ci ruwaayu tubaab bi France. te fa andi. waaw ñëw indi ko fii dindi turu France def turu Sénégal. mais loolu jafe-jafe yi ñuy jund yi yëpp. waaw maanaam bu fekkee nit bi dafa am feebaru bopp buy metti hmm. nga jël fa nga jël nga indi ko garabu tànk. du ma sa faju tànk bu dagg. Hmm. moo moo waral comme ni mu wax maanaam feebar yi ñuy am jàngoro yi ñuy am hmm. mën nañ ko suusi sax góomu robaale hmm. maanaam du wér jàngoro jàngoro yi am du ñu wér parce que yoon bi ñu war a jaar te loolu mooy système hmm. façon bi ñuy dundee moom mooy favoriser jàngoro yi ñuy am nii di ko dundee ci wàllu famille ci wàllu Euh, économie ci wàllu njàng ak jàngale. Hmm. ci wàllu état. Hmm. façon bi ñuy doxalee nii moo tax jafe-jafe yooyu du mos a. de. Ah, ba tey ci loolu it euh, yaa ngi junj ci biir bu di ci wàllu famille. Hmm. Euh, sànq dund nga lu am solo nii est ñu yooyu loolu li mel ni maanaam kalante gi dox ci diggante sant yi. ci diggante xabaay diggante séeréer ak tukulóor. diggante yu mel noonu. ndax loolu mu ngi leen koy jàngal te loolu maam li muy suuxat ci ñoom muy hmm. jikko yi tedd tout à fait ak li ngay wax ni euh, hmm. Sénégal Sénégal Sénégal pays de la teranga la hmm. nga xamante ni loolu dañ koo war a suuxat ci ndaw ñi tout à fait suuxat ko ci ndaw ñi ba tey jii kenn ku ci nekk boo jénnee war a mën a fekk sax koo xamante ni du doomu réew nga nga fexe ba suuxat xeetu jikko jooju ci moom euh, li ngay wax ni li koy firndee rek euh, dafa am suñu benn usaa bu ñu doon nettali dafa am magam boo xamante ni moom day faral di voyager benn jour mu dem mu dem mu dem mu dem fi nga xamante ni mooy codivoir d'Ivoire. Mhm. nee bu mu demee Côte d'Ivoire mu xiif. Mhm. dugg ci benn resto. non moom moo dugg ci biir resto. Mhm. di añ. am ku dugg si. xaw koo jublu si nii mënu ko ñëwal añ. nee na kooku nekk ba xam da ngay kaf. <laughs> ndaxte ñoom ñoom yooyu xamuñu ko xamuñu xeetu teraanga boobu nga xamante ni ñu ngi koy kii mais loolu it rôle boobu noonu yaakaar naa ni fi ci gën a gaaw pour ñu installer ko fa pour mu gën a gaaw a tasaaroo ci ndaw ñi mooy ci école yi te loolu liggéeyu liggéeyu état la loolu liggéeyu état la xam nga même ci livre bi ñu ngi ciy wax ni le bac Euh, une perte perdue les études universitaires de nos jours une perte de temps démb rek ci émission bi ma doon def maa ngi ciy junj ni maanaam da ngay gis Euh, tey xale yi nga xam ne ñu ngi dem jàngi école euh, maanaam li gën a oyof sax ci wàllu valeur yi nga xam ne ñun moom lañ jàpp ni moom mooy lu baax te suñu waar réew noonu la ñu war a mel maanaam loolu sax école bi dafay am jafe-jafe pour def ko ci ñoom mm-hmm. mën nga ko seetlu ci sa doom mm-hmm. bu jigee sa kër dem école ngay xool est-ce que am na ay transformation yu muy def si mm-hmm. moom est-ce que ñun ñu ngi ñu ngi seetlu suñu xale yi. Hmm. bu ñuy dem école di ñëw est-ce que ñu ngi am transformation waxuma la nag. Hmm. wàllu culture parce que école ñetti rôle loolu am. Hmm. def ci nit culture général ah parce que nit dafa war a xam géographie yooyu ça fait partie des catégories de la pensée ah dafa war a am xam ci wàllu histoire. loolu mooy culture général am ah, xam-xam ci ci mbir yu bëri ah. ok xam-xam ci réew nu muy doxee ci mm. institution yi yooyu culture générale loolu dañ koy def ci moom mm. xale bi daf ko war a am bu màggi bu demee ba am diplôme diplôme bi rek doyul diplôme day firndeel mm. dafay wuute entre sociétés yi sociétés yi bokkuñu lu ñu jàppee jikko yu rafet parce que tubaab bi jàpp na euh, góor jigéen du du lu garaaw ah. loolu ñoom du contre-valeur ci ñoom ñun contre-valeur la ci ñun donc yooyu dañ ko tàggat ci suñuy ndaw ci bi ñuy jëm bi ñuy ah ak valeur yi ak valeur yi ñu tuddee valeur ngor hmm. ah suñu société ngor nga xamni mom moy symboliser hmm. toutes les autres valeurs ngor du fen ngor du sàcc ngor du wax lu du dëgg hmm. ngor du tiit ba way ah <laughs> waaw donc est-ce que yoy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy joxe ci ci ci ci famille bi beneen problème bi ci école bi euh, beneen bu bu nga xamni fo fonction la école la moy tagat ndaw bi bu màggee mën a am xey mën am métier mën liggéey té bo xolé euh, ndaw yu bari yi nga xamni ne ñu ngi génn ci école bu ñu génnee du am métier. dañuy génn ak diplôme. Hmm. waaye lii man am naa ay étudiants yoo xamante ni dama leen yor waaye bu ñu amee diplôme master. Hmm. question bi ñu may njëkk laaj mooy lu may def. xam nga koo xamante ni jàng na ba am master. Hmm. ba pare. ñëw di la laaj lan laay def. Ah, kooku échoué na. kon loolu kooku temps temps bi mu def yëpp ci primaire. def ko ci moyen def ko ci secondaire. ñëw université def ko ci université. presque parfois cinq ans d'études. pare di laaj lan laay def. ay ay données firndeel ni tey. Euh, Sénégal nous euh, avons ñuy di hmm. plus les gens sont diplômés plus nous hmm. euh, ñi encourir le risque de de de, de chômage. Mm. waaye donc loolu day wane ni donc école bi war nañ ko bàyyi war xel war nañ ko xoolaat. maintenant famille bi parce que famille dafa am solo. Euh, ci loolu balaa ngay ñëw ci famille bi. ci mm. loolu rek nga xamante souvent ñi ñuy gis sax ñiy def yenn délit yi wala yenn yi. Mm-hmm. souvent dañ naan ko xam mooy def yenn yi. Mm-hmm. am xam-xam bi mooy am compétence bi. Mm-hmm. est-ce que léeg-léeg yenn yenn faute yi. ci côté boobu noonu. maam ñàkk xëy bi mooy waral léeg-léeg ndaw yi nga xamante ni yor seen i diplôme ba pare amuñu liggéey. fépp mën na leen a na leen a mën na leen a dab ba ñuy dugg sax si yenn tooxi doone yi nga xamante ni léeg léegi dinañ koy jàmbat. waaw loolu moom lañuy tuddee bombe sociale. Hmm. ndaw lu xa ndaw lu amul liggéey. Hmm. bombe sociale la am xam-xam. waaw hmm. mu am xam-xam ak mu bañ am. xam-xam am na suñu benn oustaz bu ñu doon wax ni. daan ne ñi ki nga xamante ni moom. dafa fexe dem ba banque. dàjj ko. kooku bu ñu ko jàppee. waruñu koo tëj. kooku dañ ko war a jël. xool mm-hmm. lan moo nekk ci moom mm-hmm. li nekk ci moom dañu ko war a exploiter tout waruñu koo tëj tout à fait xam nga ci même ci téere bi maa ngi ci wax ni man euh, benn Sénégal la bu may rêvé maa ngi ko wax le Sénégal bi may rêvé boobu noonu du am prison mm-hmm. Sénégal may rêvé man du am prison maanaam dañuy dañuy fexe ba teg nit ñi ci condition yoo xamante ni ñaawteef du yomb du leen yomb waaye koo xamante ni dem nga ba def ko au lieu leen tëj prison dañ lay utiliser ci ay ay travaux d'utilité publique yoo xamante ni di ci jëriñ askan bi jëriñ ci sa loolu la war nga ñu cee dikkal. waaw <laughs> waaw di ci jëriñ di mais dama jàpp ni famille. Uh-huh. dañ ko war a bàyyiwaat xel. Mm-hmm. famille ak quartier. Mm-hmm. dinaa ñëw si quartier mais famille dañ ko war a bàyyiwaat xel. Mm-hmm. te euh, suñu état yi dañ leen war a accompagner surtout ci moyen. surtout ci moyen parce que euh, maanaam famille yi. cellule mooy cellule de base de société. waaw moom mooy cellule de base de bi. Euh, donc parents yi bu ñu amul moyen. Hmm. du ñu mën a fay seen njàng doom te doom c'est l'éducation. Hmm. du ñu mën a fay seen njàng doom. Hmm. maintenant bu fekkee mënuñu fay seen fayal seen doom ñu jàng jàng bu baax. ah seen xel tal ah euh, euh, ñu mën a yar seen doom ci yar ci ci yar bu baax. maanaam xale bi tamit bu màggee mën na taxawaal. mën na taxawaal bu boobaa du doon njëriñ ci penc mi. effectivement du doon njëriñ ci état. moo tax ñun ñu wax ni maanaam ñun Sénégal. benn état yi. ak collectivité locale yi. Hmm. dañuy war di accompagner famille. Hmm. Euh, dem naa sax ba proposé nii euh, jigéen bu am doom. Hmm. Sénégal war nañ ko mën a euh, jox bourse jigéen bu am doom. ñu jox la bourse. te loolu yàlla waxoon njëkkoon na ko wax. jigéen bu am doom rek. te loolu lu mën a nekk la. fa in ardaana lakum fa na aatuhunna ujurahunna. loolu lu mën a nekk la te suñu budget àttan na ko jigéen bu am doom rek nga am bourse. boo xamante ni maam loo sa bëgg à doot di la si li la sa borom kër di jox ci nga ci mën a toppatoo sax hmm. nga tënk beneen bi mooy ñun Sénégal dañoo war a assumer hmm. suñu modèle familial xam nga bu ñu demee ba jamono joo xamante ni hmm. ñu ngi wax ay ay ay ay nouvelle forme familiale famille yoo xamante ni day am ay euh, euh, maanaam famille boo xamante ni góor a góor ñoo ci nekk ak famille boo xamante ni jigéen ak jigéen ñoo koy seeg ba nga xam ni ñu ngi koy légaliser ci un peu partout dans le monde bu ñu demee ba loolu am ba tax tubaab bi am fitu fi nit ñu ñu nit dañoo war a tegu ci loolu hmm. ba nga xam ni am na benn baat bu ñu créé ba am na ONG yu bëri yu ciy liggéey mooy baatu genre genre baatu genre mooy maanaam nit bi euh, sexe am warul déterminer statut ci société bi maanaam c'est pas parce que nit ki dafa juddoo ak sexe jigéen hmm. ah euh, que moom euh, maanaam jigéen la war a doon c'est pas parce que nit ki dafa juddoo sexe góor que moom góor la war a doon c'est pas parce que nit ki dafa juddoo sexe jigéen que moom jabar la war a doon bu bëggee doon jëkkër nañ ko bàyyi mu doon jëkkër te pourtant ñoom au même moment bi bi ñu euh, droit à l'orientation sexuelle maanaam nit ki euh, bu bëggé bu bëggé doon du góor jigen nañ ko yombal bu doon góor jigen bu bëggé doon jigen góor nañ ko yombal mu doon jigen góor au même moment mm-hmm. ñom ci seen bop dañoo aramal inceste tuba bi inceste moy nit kuy sey ak waajuram manam yow bo démé ba aramal lolu mm-hmm. ni li dafa ñaaw mengul mm-hmm. ak diko bu rafet mengul ak mbax ah <laughs> léegi moom ñoom fañ la ñu teg daganal góor jigéen ba boole ci ni par force ñun dañ ci topp maintenant jafe-jafe bi mooy hmm. lu tax problème bi compliqué mooy ñun euh, manam ñoom ñoo ñuy financé hmm. ñoo yor suñu njàng ak njàngale hmm. ñoo yor suñu koom-koom suñu état bi nii PSE bi Macky Sall di doxal di defar ay infrastructure bu bëggee xaar ci ñoom lay def maintenant koo nan mo ëmb sa sankal mais day ëmb sa kersa man gis naa euh, groupe bi nga xam ne ñoom ñoo demoon ni dañu bëgg def loi pour criminalisation l'homosexualité mm. mais man am na question yu ma leen doon laaj mm. am na question yu ma leen doon laaj déjà loi bi ñu wax ni moom la ñu bëgg a indi mm. nga xam ni maa bu ñu jàppee euh, góor jigéen dañu koy tëj euh, un ba cinq ans ba pare amande ko xaw ma un million ba dix millions léegi yow boo jëlee góor jigéen nga tëj ko ci kaso bi est-ce que góor jigéen da nga koy tëj ci néegam rek moom rek wala da nga koy tëj ak ay ñeneen ñu muy nekkal mm-hmm. est-ce que am na ay ay préalable ay motifs d'accompagnement góor jigéen bi boo ko tëjee kan nga koy tëjal boo ko tëjee foofu ci kaso bi est-ce que du gën a nekk góor jigéen est-ce que du wàll ñeneen góor jigéen ce que xalaatuñu nañ ñun ci suñu société bi mm-hmm. maanaam ay potentiel ay ay ay ay ay cause yu nekk ci biir société bi yoo xamante ni dafay togg ay góor jigéen ñu xalaat yi ñu xool ñu analyser ko mu xam ni dañuy fexe ba liggéey ba nit ñi ba góor jigéen du ci am mm-hmm. te loolu li koy indi mooy ñu assumer suñu assumer suñu modèle familial. ñu ni ñun nous nous optons pour le modèle hétérosexuel. hétérosexuel mooy famille góor ak jigéen ñoo koy sekk lan mooy góor lan mooy jigéen. <laughs> xam nga dem nañ ba tubaab bi sax imposé nañu benn conflit boo xamante ni bu illusoire entre jigéen ak góor ba nga xam ni fi ni nii jigéen ñi bu ñu ak góor yi bu ñu dajee ci kaar sax dañuy xuloo te tubaab bi ñoo ñu ko imposé alors que góor ak jigéen li taarafoo la mm-hmm. hmm? Euh, góor ak jigéen li alxuraan di wax mm. inna sa'yakum la shatta mm. maanaam yàlla bind nañ ci bind bu wute mm. waaye lu tax loolu mooy nji mottalante tubaab yi dem nañ ba créer conflit bu inutile entre entre entre góor ak jigéen donc man li ma jàpp mooy dañu war a assumer suñu modèle familial ba pare loolu mu suñu institution yi jëmmal ko maanaam suñu loi yi jëmmal ko waa ñu am ay loi yoo xamante ne moo koy sàmm mais aussi maanaam euh, ci ci école yi hmm. ci instance de socialisation yi hmm. maanaam ñu fay ñu fay ñu fay jàllale loolu hmm. ñu fay jàllale loolu maanaam bu fekkee ñun dañu jàpp ni société bi dafa war am góor góor dafa am nu muy mel ah, góor dafa am nu muy <laughs> te góor dañ koy togg oustaz góor dañ koy togg de gis nga gis nga lu lu

Euh, yu mel noonu. <laughs> waajur yi ñoo ci war a góor góorlu ba def ci seen kéemtalaay kàttan. Mm. tout à ndax ndaw ñi kese buñ ko bàyyee. Mm. ak fi mu toll nii. Mm. liñ ci fi ñuy jëmee. ba moytuwul foofu rek lañuy ñuy mujjee. ci ci gaal mais xam nga tey dama la jox exemple yow bu fekkee danga nga nekk jigéen. te euh, sa doom. Euh, saa yu ne ci yow lay nekk. ba pare nga koy def loo liggéeyu jigéen ba pare di ko wax ay détails jigéen ah? ba pare di ko bàyyi tout le temps muy nekk ak jigéen mais day dem ba day am physionomie jigéen. Hmm. bu demee ba dem am ay désiru jigéen day am ay bëggu jógu jigéen loolu moo koy indi mu efféminé. Hmm. maintenant efféminé ak góor jigéen bokkul. Hmm. nit nag mën na dem ba efféminé ba dem am penchant góor jigéen homosexuel loolu nag lu ma lu mën a nekk la mais loolu dañ ci dañ ci war a xalaat réfléchir si. ginnaaw bi ñu assumé suñu model familial na xam nga tey bu ñu nee état bi criminaliser l'homosexualité dañ naan non loi bi am na acte contre nature dañ ko criminaliser. donc comme acte contre nature ko. Euh, donc jaruñ ñi naan goor jigéen dañ ko criminaliser mm. wa dañu dañu criminaliser goor jigéen mais tay ñun bu fekkoon assumer nañ suñu modèle familial mm. suñu constitution ñu leeral ci ñu ni Sénégal mm. pour famille am bo xamante ni dañ ko reconnaître parce que bon demee ci réew tuba bi goor ak goor mën nañu dem ci mairie ñu def mariage ñu reconnaître ko waaw ñun ñu ni pour ñu reconnaître famille il faut famille bi nek goor ak jigéen mu leer ci suñu constitution leer ci suñu loi ñi goor jigéen daganul maanaam bu ñu gisee réew mi nag képp ku fiy def ak góor jigéen daan yi lañ lay teg daan yoo xamante ni du doon daan yu ñuy xalaat noonu rek mais daan yu efficace lay doon hmm. du doon rek loo xamante ni dañuy dañuy daan nit ki bàyyi nga mu jàll bu fekkee am nañ possibilité koo xamante ni am na ay patients homosexuels ñu tàggat ko ñu parce que tubaab bi bu njëkk ba góor jigéen hmm. dañ ko jàppee woon comme feebar hmm. léegi dañoo dem ba benn moment ñu ni lii du feebar bëgg-bëgg la comme bëgg la rek nañ ko bàyyi nañ waaye mais ñun lan lañ ko jàppee est-ce que duñu ñu a xool comprendre mbir mi. <laughs> loolu xam naa fi nga nekk neex na. <laughs> te xam naa ni euh, point bu yaatu la boo xamante ni. mën nga mm. cee développer lu bëree bëri. Mm. waaye hélas mi ngi signalé ni juróomi waxtu juróomi minute moo ñu desee ci suñu temps yi nga xamante ni moom la ñu cërale woon. Mm-hmm. xam naa da ngay def conclusion rek ci li nga mm-hmm. doon wax. Mm-hmm. Euh, ci wàllu surtout. ñu gën a appuyer ci wàllu crise des valeurs yi. Euh, ci biir réew mi. ak yi nga xamante ni ay orientation yi la yoo xamante ni peut-être dina doon loo xamante ni dina dimbale ndaw ñi. ci euh, xeetu jikko yooyu noonu ak ak ak i rëkk yoo xamante ne war nañ koo joyantiwaat nga tënkal ñu ko rek ci cinq minutes. Euh, fi ñuy jeexalee euh, comme émission bi ci wàllu ndaw la. Mhm. dañuy ñaaxaat waajur yi rek. Mhm. waaw ñu gën a taxawaat. Mhm. parce que man dama jàpp ni ndaw bu juddu ba màgg. mu échoué ci dundam ci wàllu yaram. ci wàllu xam-xam bu mu war ak ci wàllu maanaam am métier màgg am métier tekki. Euh, ñi nga xam ne ñooy premier responsable de l'échec de l'enfant mooy waajur yi donc mm. waajur yi amaat sens de responsabilité boobu parce que ñun suñu parents yi souvent dañ leen yar ci seen i droit mais yaruñu leen ci seen i devoir souvent te mm. dañuy xool rek nii sama doom bi daal na màgg gaaw tekki jàppale ma mm. bu ko defee li ñuy li ñuy investir du bëri trop waaye li ñuy xaar ci xale bi dafay bëri ba nga xam ne xale bi sax mën na dem ba benn moment mu dem ba am ay instincts suicidaires ndax li ñuy xaar ci dafa bëri te li def ci moom bëriwul noonu donc man dama jàpp ni loolu théorisé naa ko Euh, maanaam parent balaa muy bàyyi doomam surtout doom bu góor. Mm-hmm. war na fexe ba doom mu am liggéey. Mm-hmm. maanaam tàggat ko mu am yar mm-hmm. bi mu war a am ah. tàggat ko mu am liggéey bi mu war a am. ok accompagner ko mu am métier. ba pare ni ko demal sa si kër. nga Sénégal espace bi dëkkee wuñu ko. dañoo dankaloo ci benn espace rek. mais yow boo demee tàggat sa doom yar ko yar bi nga ko war a yar. ba pare surtout nag ñu prioriser yaru diine. man sama doom dafa nekkoon ci école. Mm. jàng primaire. Mm. donte école franco arabe la da doon jàngal diine waaye dama ko génne école boobu mm. dem jópp ko ni ko faa nga mokkal alxuraan ba pare. doog a ñëw te man jàpp naa ni loolu war nañ ko mën a indi sax suñu suñu système formel bi. ba xam ne xale bi balaa muy dem di jàng xam-xam. mu jàng alxuraan ba pare. donc loolu moom vraiment parent yi laa koy laa koy laa koy laa koy dégg. donc ñu xam ni. Euh, doom responsabilité la mm. te fi mu ne jamono bi ñu toll nii li yar doom mm. du xëbar xëbar du wax ju bëri mm. ah du xadar xadar ah, donc li yar doom ñaar la li ñu tuddee exemplarité wala ñett sax mën naa ko tuddee ñett utilité exemplarité ak empathie utilité mooy njëriñ sa doom nanga nanga leen amal njëriñ ba ñu yëg ko am njëriñ nag xaalis du xaalis moo koy def mooy jur bu amee jom dina amal njëriñ do ay njabootam waaw loolu lu am solo la waa ci luy tàggat personnalité ndaw beneen bi mooy maanaam euh, exemplarité mooy lépp loo bëgg sa doom mel ko lépp loo bëgg sa doom mel ko rek mel ko waa jarul wax ju bari mel ko rek boo ko melee rek sa doom mel ko man damay joxe exemple xëy na temps bi sax duñu ko may hmm. sama doom dama ko doon dama ko doon jàngal samillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika ba mu intégré ko hmm. nga xam ne bu toogee ci leeb ndab li sax hmm. dafay tibb tuuti jug ma ne ko yow lu tax ngay jug mu ni ma ah yow yaa wax di dañuy tukki nit warul lekk jullit warul lekk ba biiram fees waaw te balaa lekk dafa war a dafa balaa lekk dafa dafa war a xaar ba xiif waaw ma ne ko waa am waa waa baax na waaye léegi ñu toog ci ndab li mu gis ma ma tëbb tëbb bu ma tibbee mu xool tibb bi gis ni tibb bi dafa rëy mun ma waa papa papa sa tibb bi rëy na de <laughs> te loolu li koy firndeel mooy maa xale bi li nga koy jàngal naan ko def ko ci lu baax da ko da ko ci da ko ci jit loolu mooy exemplarité waaw bi ñu bi ci mujj nag mooy empathie empathie gis nga ñu bëri ñi ngay gis ñu màgg am xool bu bon ah bu naan waa kii moom lan mooy problème am du jéggale du jëllale maanaam ci ci ci ci dañ ko ko joxul hmm. waa gis nga nit ku ñu joxul yërmande surtout ci say wayjur mënoo ko joxe mhm. boo màggee mënoo ko donc ñu waajur yi ñu xam ne nañu ñet yoy seen jaboti té mhm. te loolu aussi bo xolé Sénégal do ni mi doxé souvent waajur yi dañ koy dañ koy sofantal système du rek politique mhm. parce que ñun ni ñuy comporté wu ni ñuy doxalee bu suñ ko soppiwul euh, parce que c'est nous qui faisons les institutions waaw nit ñi ñooy defar institution yi bu ñu soppee ko rek ñun ñu doon nit yi. institution yi dañ ci dañ ci topp jaajëfal ko bu baax docteur Cheikh Tidiane bay hmm. euh, mi ngi woon fu am solo waaye. Hmm. Euh, li ñu li war di wax rek. li ñu yëpp xajandoowul ci cin bi. Hmm. dañ koy dog ba beneen yoon ñuy àggale ko ci point yi nga xamante ni. moom la ñu waajaloon te yaakaar naa ni yu bari la yoo xamante ni yaakaar naa ni ay joyantiwaat la yoo xamante ni jëm na ci ndaw ñi waaye jëm na ci société bi mm-hmm. waaye jëm na it ci parents yi taxawaay bi nga xamante soxla nañ ko ñuy taxawee ko ci seen i doom mm-hmm. ndax comme li nga wax rek mm-hmm. waajur liggéey bu rëy moo ko am moo ko moo ko moo ko moo ko war ci doomam ndax ñun dañuy séentu lu bari eh, tey tey néewal li ñuy jëf te loolu it yaakaar naa ni rëkk-rëkk la ak fóot boo xamante ku ci nekk na ko bàyyi xel jaajëfalaat a a baax moom seen docteur Cheikh Tidiane Bay

bu ko defee sant ko jaajëfal ko moom docteur Cheikh Tidiane Bay hmm. ndax jotam mayu ko waaye def na def na def na def na lu tout sacrifié lu bari ngir am ak ñun émission boobu nga xamante ni euh, déggoon nañ leen ko ci semaine bële passé muy la place de l' la religion mu ñëwoon ak ñun ci ay fànn yu baree bari waaye yaakaar naa li ñu fi wax kenn ku ci nekk boo ko boo xippee rek lu sa baaraam bu dee ci réew mi ci doxin bi ci taxawaay bi ci pénc mi mën nga koo gis waaye bu dee ci crise des valeurs yi benn bu ci nekk mën nga koo teg sa kanam wala kenn ku ci nekk boo évaluer sa bopp amaana nga am sax boo xamante ni yaa ngi moom te bàyyi woo ci woon xel kon yooyu ay joyantiwaat la yoo xamante nii yu am solo yoo xamante ni kenn ku ci nekk war na ko bàyyi xel ah, bu ko defee mu ngoogu di leen soññaat bu baax ci livre boobu nga xamante ni mi ngi ko bind mu jénn le 7 décembre bii nga xamante ni moom lañ jénn muy Sénégal le système dans tous ses états ngeen mën koo am fu ngeen mënta dem ngeen ko faa am. Hmm. bu ñu woowee ah, rek muy ku ko soxla rek mën nañu wo ku ko soxla rek mën ngeen ko mën ngeen mën nga ko mën nga ñoo woo. Hmm. Eh, ci numéro. 77 77. 561. 761 561 99. 99 10 10 ngeen mën koo am mhm. euh, ci prix yi xéwale 10 di ko soññ ñëpp nag mhm. livre bi li mu dëxëñ bari na mhm. ndax li mu doon wax lépp njariñ la waaye li lim ci tudd fii ci téere bi li mu tudd fii lu néew la loo xamante ni mi ngi ci biir téere bi euh, bu ko defee di ci soññaan ñëpp ñu bàyyi ko xel euh, gars yi ñu ngi koy woo fu nekk di ko di ko di ko yër kon nag bàyyi la fexe leen ci am balaa muy muy manqué Eh, di leen jox dig daje ba semaine di sant ñi nga xamante ñoo àndoon ak ñun eh, fare woon ci machine bi eh, muy élage ak équipe technique bi yëpp waaye di jaajëfal le PDG Pape di téléspectateur Prestige di jox dig ba jeudi prochain wa rahmatullahi taala wa barakatuh ربنا تقبل منا إنك أنت أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك